remercier bu baax d'abord euh, remercier leader yu F24 yi nekk ci jotaay bi euh, di préciser rek ne F24 combat wam yamewule wu ñu ko woon rek ci xeex troisième mandat xeex bi ñu doon xeex pour Macky sàll bañ a nekk candidat peuple bi yëpp lañu ñu ci félicité félicité ñëpp ñi nga xam ne ay démocrate lañu ci Sénégal te jógoon xeex combat bu am nañu ci ndam mais li ñu waxoon rek mooy il faut rester prudent parce que dafa yàgg ci njublan tàmm njuuj njaaj kon génn ca noonu yéen xam ngeen ne du yomb kon restons vigilants et ci vigilance boobu moo tax ci biir F24 ñu ngi rappeler kenn ku nekk taxawaay bi mu war a am ci ñu préserver lépp lu jëm ci suñuy liberté parce que Macky Sall xam na ne jeexal na xam na ne yëf yi jeex na léegi ñi ko xañ la mu bëggoon def ñooñu la bëgg a jëflanteel parce que yéen xam ngeen ne miix sedd la nit la kuy ruminer coleeram te li mu jàpp du ko bàyyi. madame le premier ministre dafa baax rek mu ngi wax tigre en papier mais Macky Sall gaynde simb la xam nga gaynde simb day solu di gaynde gayndelu ñi muy dàq xam nañ ne du gaynde et donc ci biir. jeu boobu moom day considéré boppam gaynde mais moom Macky Sall rek moo xamul ne sénégalais yi pare nañu ci moom y compris ñi nga xam ne ñu ngi séq ak moom wala ñu nekk ak moom ci benn langue parce que madame Aminata wax na ko léegi li xew démb assemblée nationale c'est un signal fort signal boobu nag daf ñu interpeller ñun ñëpp pour que suñu liberté yi mu jóg pour entraver ko parce que am na police parce que am na gendarmerie parce que am na une partie des magistrats yu nga xam ne nangu nañu nekk bras armé ñooñu nag léegi ñun sénégalais yi ñoo war a jug pour wan leen ne suñu doom yi ñu tëj ci kaso yi suñu mbokk yi ñu tëj ci kaso yi suñuy àndandoo yi ñu tëj ci kaso yi te wéeruñu ko fenn il faut mettre un terme asla ku ne gis na week-end passé li xew ci investiture bu Pastef bu président Ousmane Sonko ku ne xam na ne Macky noonu lay doxale fàttaliku leen en juin dernier bi ñuy def investiture bu gëm sa bopp ak jidde caaroy kaw administration territoriale la ñu utiliser pour saboter ko bi F24 waree def dialogue du peuple yéen a ngi koy fàttali ci lieu privé dañ ñu fa fekk génn ñu fa ñu dem siège Malick gàkku ñu fekk ñu fa ak détachement gendarmerie génne waat ñu fa kon loolu mooy man buur su ma nee fii kenn du fi teg ndawal faw ngeen respecté ko kon xam ngeen ne moom Macky sàll buur la jàppee boppam li xew bërki démb siège PRP bu président Déthié Fall yéen ñëpp gis ngeen ko xëy suba ñu indil leen ay gendarme teg leen ci buntu siège bi barricadé ko ba kenn mënu fa dugg et on a l'impression que seen stratégie maintenant mooy jël suñu force de défense et de sécurité yi di leen fooye gis ngeen kër góor gi fu nekk ñu teg fa ay barrières policiers yi taxaw fa ak gendarme yi mu mel ni sabar gu tas kenn mënul dem kenn mënul dikk uniquement pour indi jafe-jafe ci benn doomu aadama boo xam ne deful dara lu may taxaw jàkkaarloo ak Macky ne ko ànduma ci li ngay def bokkuma ak yow gis-gis kon li wóor mooy ñun ñi ñëpp toog fii suñuy liberté actuellement chaque jour Macky mun naa yónni polisam am wala gendarmerie ñëw teg loxo ci ñun wala fàtte suñuy kër barricade ko bi ci mujj di El Malick Ndiaye dégg ngeen ko une histoire absurde audio boo xam ne benn sénégalais bu nekk Italie moo ko def tudd Mor kase ñu jàpp El Malick ne ko yow ojo boobu yow yaa ko def jàpp leen ne li dal El Malick mun naa dal kenn ku nekk ci ñun li dal Biram Souley ba mu wax la mu wax dellu am grandeur ak ngor ne moom mu ngi jégglu ci kàddu yi bu ñu amoon njiit boo xam ne day jàppe boppam ni ko yàlla def bi Biram Souleye waxee ne jégglu na ci Sénégalais yi ci la waroon génn ci kàddu googu mais c'est dommage boo amee di jëflante ak nit koo xam ne xamul lu dul fitna ak rapport de force situation yu mel nii rek lay indi ñi ñu tëj ci prison yi wax nañu ci ñu ngi ci dellu di ci waxaat di interpeller la communauté internationale di interpeller kilifa diine yi pour que makki sàll ñi mu jàpp ci kaso yi mu bàyyi leen ñu dellu ci seen kër bu ñu koy lim fi lay fi la ñuy des Bassirou jomay euh, Falilou Keïta euh, professeur Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaq Euh, Pape Amadou Touré euh, bari na bi ci mujj dégg ngeen démb ay responsable yu opposition au niveau de la commune de Koki également jàpp nañu leen woo leen ci gendarmerie téye leen fa sonal leen euh, loolu it jàpp nañu ne c'est des choses yoo xam ne il faut qu'on y mette un terme et bi ci mujj Aliou Sané mi nga xam ne ñu ngi koy menacer dindi liberté provisoire am parce que tout simplement bëgg nañu faagaagal F24 mais ni ñu koy menacé ci liberté provisoire am ñun ñi ci des ñëpp noonu la ñu nekkee ci liberté provisoire parce que à tout moment Macky sàll mun na dal ci suñu kaw Macky sàll mun na jël suñu liberté et loolu nous interpellons tous les Sénégalais pour que ñu mën a taxaw jàkkaarloo ak moom ba li nga xam ne Macky sàll bëgg na ko loolu dootul mën a nekk ñu ngi leen di gërëm merci